Euh, ni nga ko waxee lii ñu gis ci école bi lu lu jafe la lu mettee gis la école la boo xam ne ñu ngi jëm ci ubbite école waaye école bi dafa nekk ci quartier boo xam ne mooy Santhiaba école Francisco Carvalho ñi xam Ziguinchor xam nañu moo doon Santhiaba rural fii école bi fii ñuy wax mooy napp bi ndax ndox mi dafa nekk daanaka ci bitti boo gasoon fii cinquante centimètres un mètre dangay am ndox rax ci dolli taw bi bari fan yii rek ci ginnaaw mu tawaat te taw bi jeexul dina tawaat donc école bi ndox mi taaju mooy li ñu fi fekk sapeur pompier yi ak ñëpp a ngi ci di ko ŋacc di ko génnee pour que xale yi mën a jàng bi ñu ñëwee gis nañu école bi aussi bëree lool ñax waaye lu jafe-jafe yi bare bare pexe yi ak taxawaay yi mën na ko saafara looloo ñu dajale fii tey moo tax c'est préparer rentre des classes parce que dañu gëm ni comme ni ñu koy waxee ubbi tey jàng tey naam moom la ñëpp bëgg waaye am na école yoo xam ne jafe na fa ndax lu mel nii waaye bu ci ñëpp ñëwee taxaw loolu dina saafara wala dina wàññeeku lool ba li ñuy xaaritam itam na pële ñu ci lii li may bëgg a wax mooy xëy na fi ñuy ubbi muy gannaaw ëllëg jafe na école bi lépp pare waaye taxawaay bii ma gis fii ak mobilisation bii ma gis mu di sapeur yi ba ci ñeneen ñi muy SONAGED mu di cadre de vie structure état bi ñëpp ngi mobilisé wu ak communauté bi dinañu ko wàññi bu baax a baax ba nga xam ni xëy na xale yi duñu toog lu yàgg ñu mën a dugg si école bi ñëw jàng si fi may daanelee nag mooy ma wax benn baat ci lii nga xam ne ñu dajale fii muy journée nationale de nettoiement président de la république bi mu koy sos di ko taxawal waxul rek ne na nit ñi génn rek bu ñu balee mu jeex ñu dellu suñu kër ñu ne def nañ ko déedéet du loolu li ko sabab tax koo jóg lu gën a profond la dafa gëm ni am réew boo ko dee tabax naam war ngaa tabax ay tali war ngaa defar ay port ak aéroport war nga financer économie war nga am ay industrie ak agriculture ak sax ay ay affaire ndox autoroute de loo yëpp nag incha allah dina ko réaliser ci Sénégal te le 14 bii ñu jëm dina génn wax sénégalais yi mooy référentiel bi ngeen di dégg la projet mu ne sénégalais yi fii ak juróomi at fukki at ñaar fukki at ak juróom fii mooy fi ñu leen bëgg a yóbbu ci développement développement moo waxatuñ ko ban façon ak nu ñu fay yeggee loolu la leen di wax mais incha allah dina fa yóbbu sénégalais yi moom ak le premier ministre et le gouvernement. waaye loolu ma wax lépp li ko gën am solo mooy tabax nit ki defar doomu aadama moo tax mu ne lii ñu woote muy journée nationale de nettoiement dafa bëgg sénégalais yi ñoom ñëpp ñu dellu si ci seen gox ñu ñëw jaarale ko ci école yi ndax école ci la ñuy defaree nit ki. école ak famille bu ma école nak daara ci la bokk ak famille ñoy défar citoyen bi jébbal ko état bi jébbal ko nation bi lool nak dañu bëgg mu nekk citoyen de qualité et de valeur bo xamni ne day def li ñu wax ressourcement moral mental ak spirituel suñu valeur yi fi mag ñi bayyi ñu jàngal leen ko pour xalé yi ñu xam dignité xam intégrité bu ñu leen joxee réew ñu xam lan la journée bi loolu moy li ci souf pour citoyen yi momat réew mi souveraineté balaa nga am ci wàllu économie balaa nga koo am ci agriculture da ngay am souveraineté culturelle mom sa bop xam sa bop loolu nak moy li nga xamni moy sabab journée nationale de nettoyage parce que citoyenneté moko lal ñuy gëreum encore une fois waa chor yépp di gëreum wa quartier bi di di Santhiaba waaye ci touru président wax dëgg moy nuyu wat di sant di gëreum di leen wax ni inshallah dans les meilleurs délais lu bare bare lu ngeen gisoon ci réew mi mu doon ay jafé jafé dina saafara bu sobé la progressivement. dañu jëlone journée bi. Euh, setal sa réew dugal ko ci suñu programme euh, bi mu ñëwee nag euh, bu ko defee ñu ñu ànd ci ñu jël tam lu symbolique loo xam ni day wane rek suñu yéene comme yéene bi ñu koy defee ak euh, lu gouvernement bi di def ñu dugal ci suñu loxo de sawar ci nag ci bu mu tombee ci moom ñu jëloon fukki brouette ak juróom joxe ko ak ñaar fukki bale euh, te itam li ko ministre bi waxee sopp naa lool ni mu ko waxee ndax yenn saa yi dañuy ñëw joxe coup de pioche rek daal di dem mais nee na école bi duñ ko bàyyi ba ba xale yi di mën a dugg mais duñ ko bàyyi aussi ba problème yi jeex parce que léegi bi ñuy génn la gouverneur le le euh, directeur école bi wax. ni toilettes yi posé na problème alors ma déyu ak euh, gouverneur ak monsieur le ministre wax leen ni bu ñu nee toilette rek damay xalaat xale yu jigéen ñi ndax xale yu jigéen ñu bëri ñu ngi bàyyi jàng ndax problème mu toilette te liy dëgëral jigéen ñi pour ñu jàng nekk à l'aise mooy effectivement école ba ñuy am toilette yoo xam ne dina leen mën a accueillir loolu moo tax euh, ma diggee sama diggee bopp. que bu ñu fi jógee itam dinaa seet ak gouverneur ak monsieur le ministre ak l'inspecteur d'académie, d' académie nan lañ ciy jàppe ba euh, toilette yi baax ba mën accueillir xale yu jigéen mën accueillir xale yu góor. li ministre wax mo ci am solo euh, euh, journée bi dafa symbolique waye itam dafay am ay enseignement yu ci jëlé jëlee enseignement yi nak moy heureusement que ñom seen gouvernement. ministre de l'urbanisme moo yore collectivité waye ñetti secteur yoy dañu am pour liggéey ministre de l'urbanisme des collectivités parce que xam nga ne école compétence transférée la ak ministre de l'éducation suko défé defee bu ñuy tabaxati école